dafa agsi ci gëm ab dogal dogal bi nag mu ne la muy jëmale ci man mooy lu sell àgg na ci boroomam foo xam ne daal lépp lu muy dogal li di jëmaleti ci moom lu sell sell lay doon dara lu ko gën a lut yàlla du ko dogalati mu jëm si ci moom mu ne nag yéen ndaw ñi bu ngeen bëggee xam li ñuy gëmee dogalub yàlla mooy rekk mu wóor leen ne tombe amut rëcc rek amut am amut lépp lu am rek ak lu nar am yàlla xamoon na ko rëdd ko sàkkal ko waxtu ak bërëb ak dayo boo xam lu yàgg-yàgg du ko rëcc ci genn wet leen lu nekk nam ko dogale woon rek noonu lay sottee te yàlla noppi na ci lépp la mu dogaloon rëdd ko rek lay sottal waaye amut lu muy rëdd rëdd gu yees kon ni ngeen di gëme ab dogal mooy ngeen gëm ne lépp lu am rek lu yàlla dogal la muy yiw muy ay muy lu neex muy lu naqari lépp rek yàlla gëm yàlla ak topp ko ak la cay juddoo ak wedd yàlla ak moy ko ak la muy jur lépp rekk yàlla loo ci topp rekk mu dellu ci dogal ba ndax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi yàlla ci coobareem rek la ko defee mu gën mbooleem jaam ñi nekk njiitul ñuy texe Iblis it ci coobareem rek boo ko delloo cosaan ci la ko yàlla rëbboo def ko muy njiital mbooleem ñay texee di ku mel ni Muhammad mëneesul ne ba ko yàlla sàkkagut la defaloon yàlla lutax mu tek. ko fim ko tek ku melne iblis wala nga ne abu jahlin wala firhauna amu ci kenn ko xamne laata muy juddu la defoon yalla lutax mu mere ko ba fetele ko fam ko fetele ci walu texedi kon lo top rek mu dalu ci ab dogal yalla ci dafa am ñu mu sopp di leen womatal seeni bëgg-bëgg di leen jox di leen fegal lépp lu lor am ñoo xam ne ci ab dogalam ci coobareem sopp leen daal leen di jiital jëmee ci mbugal ak xisaab ju metti ak jël baaraas bu fat doxale digganteem ak ñooñee nga xam ne sopp leen te lépp coobareem la gëm ab dogal daa war àgg ci ki gëm yàlla mu wóor ko ne yàlla képp moo fi nekk ak jëfam lépp lu dul yàlla rek jëfi yàlla liy feeñ sax ci mbindeef mel ne mbindeef ko jëf ca dëgg-dëgg mbindeef ma jëfu ko yàllaa ko jëf nekk bu ñu gisee sawaram mel ne day lakk wala ndox mel ni day màndal wala jësi mel ne day rey wala bu asamaan ci tawee suuf ci tooy mel ne taw suuf si ñoo saxal loolu lépp du dara lu may lu yàlla wane rek ndax bëgg doomi aadama dagam yàlla defal na ko xel mu xam buntu ba nga xam ne moom lay wuti bu bëggee jariñu xam fa war a aw bu bëggee mucc ci lor nga xam ne amul menn mbindeef moo xam ne mën naa jëf dara lu mu tuuti tuuti lépp rek yàlla waaye nag yàlla dafa sàkk sabab yi wutal doomi aadama xel xel mi di ko di ko ràññeelal njariñam ak lorom nga xam nit bu fekkee ne dofut jógewut a dof nelawut kenn forcé wu ko tamu dem ba kàllafe day mel ne kon am na tànn ci waaxu jëm ci la koy jariñ ak di jéem a daw la koy lor bu ca boole diku gëm ne yàllaa ko sàkk nag te da koo digal lii aaya lii kon ni muy sababloo ci wàllu addunaam nga xam ne wóor na ko ne bay taxuta am nawet bu jag te lu tee muy jéem a bay ak a sonn kon dagam gëm ne yàlla nay jéem a rafetal gëm ak rafetal topp te bàyyi yàlla la ca des nit nag bu gëmee yàlla ñu ne ko lépp yàlla lu am yàlla ko def loolu nangu ko ci xolam yomb na waaye la jafe mooy mu dem ba nga xamee ne xolam nangoo tut lu may loola nga xam ne lu dara tuuti tuuti fi saasay saasa da koy daal delloo ci yàlla boroomam xam ne yàlla rek du dara yàlla rek fi nekk ak jëfam loolu mooy yaqiin jaam bi wóolu ne amul menn mbindeef moo xam ne mën naa def dara lu mu tuuti tuuti la gën a tuuti ci gis ci bët ak la gën a lépp yàlla bu jaam bi àggee ci mënta gis lu may loolu xolam nëguwut lu may loolu te lu ne cocc fi saasay saasa mu delloo ko ci yàlla loolu mooy yaqiin ci la jaam ñi rawante lool nag deesul jekki-jekki àgg ca dañ koy jéem ak sabablu ak di ko ñaan rek ba àgg ca kon lim daane lu bunt bi mooy war nanoo gëm ne jëf lu mu tuuti tuuti jeexit lu mu tuuti tuuti yàlla waaye mbindeef mënut sañut xamul sax dara bay def yàlla moo sàkk lépp te leen lu ne moo cay soppandikoo du tee nag ci zahir ñu koy askane kam feeñe ca moom rek ndax mën a doxal àtte bi yàlla ci kaw suuf rekk waaye ca dëgg-dëgg lépp yàlla kon juróom benn li nga xam ne moom lañu war a gëm ci lislaam sëñ bi teqale na ko gëm ab dogal moo ca mujj loolu mooy xaaj bu njëkk bi ci téere bi aju ci wàllu gëm yàlla ñu koy tuddee tawxiid mu jàll si ci al islaam